fi la amé bu len ma wax lo dañ fair play rek du ka foré ambiance comme mom la woté won nañ ci nañ ci dem rek mo gën du deug waaw pour benen catégorie bi nan nabu da ngay walé da ngay ni vidéo bu ma ba ma du tak kenen kudul man du tay

sama mariage ak ak monsieur Fall yàggul est-ce que amul machallah 9 neuf mois yàggul dem len dix mois avant comment j'étais toujours pareil di mbalak aawoy naan leen non yéen ni mbalak ñetteel j'ai toujours été comme ça pour lan ngeen bëgg jël tam mbalak yi boole ko naan day gaar kan lay gaaruwaale pour lan tax ma koy pour lan sama yaay nek ñaarel sama mam nek ñaarel ñu kër gi ñep dañu wujje dañu wujje bané gaynde gi ale ale ale ale ale ale gaynde bi dem ragalu ñu lolu di dat yi rek man door accepté wu mako tank sey bi amul ay door duma dem mais mbéj door gaj kumoko def téléphone yi lay ramass yi ma mayoon yépp lang ma may ca xaay say caabi kër ak oto ma la am merci thank you very much sama yaa jurul loolu jurul ku ñuy dóor jurul loolu sama yaa jurul ku ñuy dóor danga may mën a cajoler na ko ma dem mais bi amul dóor donc pour lan may gaaruwaale xanaa booy gaaruwaale dangay gaaruwaale day fekk sa xol naqari jéeg bu fi gaaruwaay sa xol dafa neexut ndax man dëgg neexut mënumaa am lii ma sama jëkkër di ma may ci teraanga nii nekk ak man night and day every day 24 hour for 24 hour chaque jour bu nekk sama wet demul dikkut amul xarit amul àndandoo may gaaruwaale di ma jox lu mat nag ci kaw lal bi ma benn may gaaruwaale xanaa man nañ maa liggéey macha allah xoolal li ma mel. Je def li ma mel nii sama fama sama forme bi avant may sey mel dafa tolo dafa tay coca cola gis nga mois de mariage sen Je suis Mbap, ndax dañu koy bës diko ma pris au sens du chose de on m'a pris comme tel comme de l'or comme du diamant def hanche xale yi di wër te mënuñu ko am def sein li xale yi di wër te mënuñu koo am dëgg neexut maa leen baal nànk kon gaaruwaale wu ma c'est comme ça c'est ma nature bu ma fi déggatee nag sama message sama page ku fi ñëw wax lu ma naqari baa bind lu ma neexu lu dul dama bëgg sama jëkkër mu bëgg ma ku ko fi waxati ma capture sa profil li jënti fi nga dëkk booy ak aadama am ngeen ko leen ragal waaw damay menacé qui se sent mort va se dëgg neexut ñépp ne tekk yéen bandi woo leen sax ma noppi di kaf di foo di ree ngeen di di teppeeku ku nekk di jaay aristocrate ñii di jaay Georges de Bouchan ñii di jaay Gutenberg ay waaye yéen yéen nan la ma dugg si jeeg ji ma dugg nàng si jeeg ji ndax duma leen wax tata bu pare di leen xas ndax respect dafa am man ngeen di conseil man mi nek mineur sama bir sey di dund lu neex ba jëf yi ma man ngeen xass tata bala nga ma xass outal say dara yu blanc bala dara multicolore dafa xewi tata bala nga maa xas utal siir épili sey pokota ndax say karaw beuri na foré amazonienne lamay fatali sen jikeri duñ tok ndax temps bi ngeen war jeur pour toppatoo seen keur defoo leen ko yeen ngi ci jambour yi serigne ngeen jonkan fa bouteli di wiss nama diw abal sama dom ni kii tata togal toppatoo sa alaaji as jokko mu lek jokko mu nan boole ko wat say tan ak sa kanam am ngeen no len mel xey ngeen xassaw ngeen ngeen lay waxal Entah bu si bu si jéeg rek sa kerugian. tata ku matal sa bos du génn néew ma nag duñu tak. mais du ku ci xef ba sa alaaji as tak combat la bul nelaw de bo yandere ñu dool le tataay lay waxal am sen ans ba 60 ans fu la fek rek ngay wor xéssal xéssal nga ba sa yaram mi ñampé nga né do bayyi sa yaram mi def ay rew nga né do bayyi say ween yi wadd nga né do bayyi sa hanche père tata nga né do bayyi tata yaay wor produit fes augmente fes produit augmente sein funégré nga duggal olive nga dugal lo gis duggal pour am sein am fes buñu ñu nga nan eh ki. naturelul kii na naturelul te yëpp naturelu ma looy warul naturelul Alexia Kandé ku ko fi indi woon du sénégalais yi ko fi indi yóbbu leen pour maa nu leen di piqué ci taat chirurgie esthétique dafa laaj xaalis du n'importe qui moo ko du ku tëb def ko mënuloo ko amuloo ko yamal ca la nga am naanal fonde ana fonde ana mu xam sax ruyalal nga naan pour lan ngay forcer loo mënut comme mënul bawul yàq yow ah te yéen ngi yàqule yéen a ngi yàqule nag maa ngi leen di bëgg a xamal nag seen i secret poche ange yi jeex ci marché pour lan la sénégalaise balaa moo soo rek sol ay poche ange feeñut feeñ na xam nañ ni ange danga koo poosé man maa nga ni ku ma xool xam ne tubaab fakkaale macha allah daw ma cooy poosé wu ma ko laaj leen ko Moussa Fall musuma ci àddina sama yaay sax nii la mel. danoo sekki da nature danoo sekki ak li ma ci yokk te bañu ma ko mosuma kaa daw ñàkk maa xam wóorut lu ne laa leen xamala ah. tata sa néeg xasaw na sa néeg xeeñ na sa néeg poussière na xale yi suuf suuf si bu ñu fa wéjee suuf si góor bëggulu lu salte bëggul lu tilim lu coono bari bari bari góor dafa bëgg jigéen bu set nga def épilation à rasoir baax parce que dafa indi ay picc rasoir baaxut dafa indi ay picc épilation à la cire wat sa poqutaan wat sa fii wat sa yëpp xam li ma la wax ut say neige say lusette say lingerie de corps lundi nga sol jaune mardi nga sol bleu vendredi nga sol rouge dimanche nga def tout nu jommal ko muy dof nga ne ko kaay ma faj la may kii lay faj nga récupérer ko tek ko dana dóor mu dugg François bokandé bobu leader da ngeen di jàng man ma leen ko wax da ngeen di jàng sëy xam nga ku def championnat 3 ligue de mariage xam nga ni 4e ligue bi boko jappé bo boo rek kouti mbassane pour lan mbeuri di mbapat Balla Gaye dafa teub rek nek roi des arènes dafa dem mbapat dafa mbapati fa mbapat te kenn du na daanu ko sama patma ma dama mbapat bu pare dug nak roi des arènes nek ci arène bi nek roi des arènes te duma ko jox kenn nak xalé bu ma ci tendance ba ñew ci sama biir kër gi duma la sodé duma la asib ndax def nañ ko duma tu ndox bu tang ndax def nañ ko mbak mbak bi def nako jabar ci duma ko duma ko def xam nga lay def dama lay séquestrer di lay mutuler xam nga lay mutuler lay mutuler ben par ben xanaa mucc le dagg say weewu tànk roll xam nga wee bi wee bu bi wee bi wee bi lay teggi nànk wis ci lingom ak bineegar ba ko foofu une semaine bàyyi la nga dem dootoo ko defati maanaa man permettre naa la ngeen apprécier ko d'accord sa jëkkër dafa ñaaw sa jëkkër dafa tuuti sa jëkkër dafa lii dafa lii d'accord naa sama jëkkër dafa ñaaw sama jëkkër dafa tuuti sama jëkkër lu nekk ngeen wax d'accord mais góor lal ba day lu naa bañ góor bu mignon di yor lu tuuti bëgguma ko waruma loolu waruma góor bu mignon te mënoo dara capacité zéro il faut que nu buux la waruma loolu moteur éphémère électron libre mooy sama jëkkër électron libre liberté amul timing fu ma ko bëgg nag tabe bëgguma góor bu mignon nay lan mooy góor punkal wi wees wees wi nay poqutaan yi forox ay góor yu xeeñ ay góor yu xasaw deux minutes mënuñu ko sa kaw pour lan góor du rafet day bëri doole am xaalis di la ko defal ñëpp di ko teg seen ba ñëpp di ko gis faa ñu ko yaaram ndox maa siggit ndax teraanga weesuwut lii li ma bëgg sama biir xool dina ma ko raax samay téléphone ñaata téléphone man doom parce que huit téléphone te bu ci nekk un million et quelque lay jar man lii laay wax góor gu ma teral teral ma ci teraangay àddina ndax teraangay àddina bët loo xamul kan jeex loo romb na neex jox ma xaalis di ma fóon di ma ko jox loolu laay wër bu pare nag jullite à cause de lui maa ngi respecté samay waxtu julli ma nga jiem nak respecte sama waxtu jul ndax duma ma fen man da na jul tay suma ma mais depuis que je suis avec mon mari damay respecté sama waxtu jul ben sunu sunu keur ngi nii doonoo am petit mosquée à la maison waxtu duma raté fu mu jotee dañuy dem julli ñu ñep top ci ginaaw mu ñu jité lu may wër leneen topp kuti mbaasaan yi ñuy jaay hmm facture sax mënu ñu lako fayal duñ la fay facture courant duñ la may orange mënu la may wave lu may doye ñooñu pour lan man mag la damay jëm mag aw ma temps aadama di wax aw ma temps aw ma temps aw ma temps wu toog testé ay mariage aw ma tuma temps c'est fini last bal ba ngi dama ko dóor mu dugg yeen yeen am jëkkër yu rafet prenez sen jëkkër ñu rafet yi yeen xam mais yeen yeen ay ano ano sama jëkë def may dóor encouragé bëgguma ma bu len joy

ma boîte ma hôtel daf ma fekk sama liggéey may liggéey sama boutique may liggéey mu gis ma rek bëgg ma. 3 mois mu tak ma dañu respecté sax affaire bi la ba 3 mois mu tak ma tak ma kaw nak bongo yi di jël am bongo ñu ñep ñew dollar yi di jël duggal ma ci villa piscine may ma xaalis may ma auto may ma beaucoup d'amour fuma jëm non man duma xalé wax leen ko xale yi tuuti ngeen pour dissuader dema ci sama sëy bi tuuti ngeen ci tant que dóoruma rek moom lépp delloowaat naa ko ko tant que dóoruma rek lu mu ma def d'accord dóor laay bañ ndax sama yaay jurul ku ñuy dóor j'aime pas ça me martyrise ça me martyrise xam nañ lépp sister comme yaa ngi wër ba tey ku la teral ndax nga mën teral sa ndey continuer di wër man am naa li ma doon wër gis naa ko wëratuma wëratuma góor bu lay may ay trente million quarante millions boole ko dëgër lalu feer fu ma jëm boole ma doon diri sax dew ma dew ma bu ma laa ko ne woon choisir rek sa borom kër wala sa yaay ma jël sama borom kër bàyyi sama yaay mu dee maa tey na dee ndax dundu na ba sama papa gañ ba mu muur ba mu ni ñu koy waxe ba mu ko damay dundu sama ya ba ne woon na bu baye ko ba ma dee ma ko deewal ma def ma sa deej ma uh, nak ak mutard nu an nu def moutarde saf bayu ma ko deewal du ko bayyi nday bi ma sukk jur mu ne woon ko mané ne ko deewal ma préparé léegi yoox ben encadrement bu rafet nga teud fa ko asama gi Faire play là woote avec ambiance Faire play là woote avec ambiance faites fekk si ma wala rek la guerre te daw non non non Je suis au vrai sens du mot je du ma tchadien du gambien du ivoirien la sénégalaise là. am carte d'identité ni yow ragaluma loolu ñàkk ngeen fayda jéeg yi wax yeb di xasta yeb vessel sax amo len ko vessel gu bax amo len ko touray bu neex sax amo len ko di wori di doxani nan da damay wacc 20h bébé je suis au bureau bureau lan man fexena ba bureau ñoy andando di xëy di àndandoo wàcc Je suis confiance ci man ma am confiance ci ki dak Sénégal bu su sax Fall jusqu'à la preuve du contraire nee bëggul ndax gadj yi makoy gadj ak mat yi suis mat moko doflo xalé bi ma dox ci bi ko ko ko lem miel dit démb tey iPhone iPhone iPhone 13 j'ai peur miel barki démb tey iPhone 13 j'ai peur à suivre Nak. à suivre Vous fanaan ci jam bug de nag Vous débat calme leen seen ardeur Je yem fii bu kaw mu maa dem resto avec bébé te buma kenn xamé nak na bu yow kenn buma buma kenn laissez-nous passer inaperçu Nous intimité tout à l'heure au restaurant buma kenn xamé ma tok tout tranquille sama jëkkër nous partager des moments délicieux parce que je sais que la nuit sera très longue ndax il me faut lui remercier remerciement oblige bisous je vous aime. Je vous aime. Tons Adama. <laughs> mon tonton d'amour tonton Adama Nya. <laughs> allo ah miel elle l'embi. bien.

waaw baax na bisu bisu tons Adama Niang c'est si miel bi la bëgg donc dañ koy ñëw rek may buteelu miel ndax man duma waxantu voilà bisous, bisu te bu ma kenn xàmmee au restaurant hein, je veux un dîner sans intrus Vous ma kenn xàmmee pas de photo pas autographe dama que s'il vous plaît euh, des vacances qui week-end anticipé la nuit sera longue demain dinaa ñëw beneen surprise ndax tey dama ko bëgg yëpp ba ca MSCR mu nuyu ko wàccaat bébé nag na nga am ngor boo gisee MSCR ñëwal wax ne da gis nga MSCR ndax la ma ay la ko nar <laughs> baax na bisous